voilà donc tey dañoo ñëwoon xool euh, comportement ñu tuddee ci ndoxu euh, taw bi fii ci kanalu euh, Kandé bi su ngeen fan yii ci bu mu tawee génn naa dem ay jeefaay dem naa jeefaay dem naa Gumel xool bu tawee quartier yooyu naka naka la ñuy dundee ak ndoxu taw bi ma génnee tax na ma xool yu bëri xam ne war nañu am liggéey bu ñu mën a def pour soulager population bañ bu tawee ndox bi di taa ci koñ yi ak di taa ci kër yi ba tax na bi ñu jógee ci visite boobu laa jël dogal jël uti machine bu mel nii ne sama équipe yi ñu ñëw ba ci canal Kandé bi parce que bi keroog bi ma bi ma doxantoo fi gis naa ni canal bi dafa bouché woon suuf si da koo feesal ba mu fees del ba ndox bi mënatul woon jàll donc ci laa wax sama équipe yi ñu jël machine bi loué ko ne leen nañu ñëw génnee suuf si nekk ci canal bi moo waral daal yi ngeen gis ñi dañ koo déplacé parce que machine bi rek ko mënoon déplacé ñu déplacé daal yi ubbi ubbi canal bi nekk di curé euh, canal bi génne suuf si nekk ci canal bi donc liggéey boobu le sama équipe yi nekkoon di def euh, démb ba tey moom laa ne woon naa ñëw xool tey ba xam liggéey bi fu mu toll alhamdulilah liggéey baa ngi avancé kontaan naa ci trop parce que euh, suuf si buñ ko génnee ci canal bi dina tax ndox bi jógee ba ci ay ci Tilène jógee ba Kandialan Kandé jël ndoxu Kandé bi yëpp dana mën a jaar fii tranquillement dem sotteeku ba ci géej dina soulager tuuti population bi ak euh, bépp citoyen bi nekk ci Ziguinchor parce que boo seetloo bu tawee aussi ndox bi day bëri ba nga xam ne oto yi sax pour ñu jàll day xaw a jafe dina am oto yoo xamante ne bu leen ndox ndox bi ndox bi bu duggee ci seen moteurs yi rek man na koo yàq donc defe naa ne lii buñ ko réussiree dina soulager lu bari ci tali bi ñaari voies Kandé yi ak national bi dem ba Kolda parce que boo ñëwee ba ci rond-point Aline Sitoé bi ndox bi dina bëri ba nga xam ne circulation bi day xaw a jafe donc liggéey bi ñuy def nii liggéey bu am solo la euh, mu nekk sama mbëbët incha allah dinañ continuer yu mel nii fépp ci Ziguinchor foo xam ne canal yi bouché na. ndox mi mënatul jàll dinañu def ay opération yu mel nii pour que bu tawee ndox mi di mën a jàll facilement ndox mi mën bañ di taa ci kër yi ndox mi bañ di taa lu yàgg ci euh, ci tali bi donc kontaan naa ci équipe bi ñu ngi fii di liggéey ak machine bi alhamdulilah di ñaan rek liggéey bu mel ni continuer ndax di ngay soo mën a gis boppam ci euh, bu tawee ndox yi bañ bañ kenn man daal loolu mooy sama mbëgg gis ma kenn di sonn bu tawee I'm vibing. normal mulɓe jan a fawe kuyanta to bayla jatolu nata tonkolin mbal janne ɓe duula sembe ren sembe keɓa niman keɓa kuliyay samba jujuba to ke pasin pasin ye kuulon ye kuulon ye kuulon kintan jamal bide man kuulon siyata siyata lamberu siyata dolman buuno sara